Abdou Salaam Mbàkke sa xel war nay dal gannaaw boo jëflanteeg moom ba pare waaw ci alxuraan rek lay dox déggoo ma de ñaanam xaas la muslaay gaa ko raw yow mi say mbir dëgër maanaam nga umu bëgg a ubbeeku nag ba loo yóotu jot ci sëriñ Abdou Salaam Mbàkke moo ma ci doy ballak maaram ay saak saajo waajaa ngi nga bëgg liggéey bëgg itam tukki mu tëla ngay lijjanti ay kayit mu dëgër nga jortu ni dañu la liggéey baa xewoo déggoo ma de mooy safoo kenn nga bëgg bayre moo ma ca doy yaay raw bukki bu ci ngénteel pël bu ngeen jëflante nga nekk itam bitim réew ay kayit jafe la lool waaw ba ci yow mi bëgg liggéey mu tëla ana ñi bëgg bayre njaay la mu cay def mucc na ayib ngay jigéen bëgg bayre pour ñu sopp la bëgg la ba ci góor itam nga bëgg bayre ah amu ca morom waaye kaaraange gaa ca gën a neex aar la doog la koy jox nga nekk ci entreprise bëgg a yëkkatiku yow mi yor sa entreprise itam bëgg ay muslaay néegi sa yi bari rëng-rëng day sëriñ Abdou Salam Mbàkke moo ma ca doy coow la bu ngeen jëflantee ngay jigéen di say ci kër sa jëkkër dana la gën a nopp waaye say goro ci say njëkkee say mbokki jëkkër dañu lay adoore fu ñu mën di toll waa koñ bi nag ñépp lay sopp ngay say ci kër am jafe ak sa borom kër ba ci yow mi jigéen bëgg jëkkër mu tëla yi góor itam bëgg soxna mu tëla ah mbir a ngi waay ba ci yow mi faru rab sonal muy ko góor ki mbaa ko jigéen ki ci ñaari wàll yépp nag boo bëggee dégg-dëgg tey ak seet woo ko ci 78 433 maanaam fajum cosaan ak aada gënniw kartan ci néegu sëy ba tey nga amee ndoxum siti hémorroïde ba ci ballonnement ñu baamtuwaat ko moo ngi nekkee Géejawaay marché Sam en face centre commercial ba tey yéen ñi bëgg ay muslaay ba ci ndomba kaaraange yi fii rek la man Dj Mboy normal de yàgg naa di leen wax ki ko mën a ki koy jéem du benn ak sëriñ Abdou Salaam Mbàkke rek njàqare day daal di dañ ba jeex tàkk ci kàttanu yàlla ak mbaaxam aajo yépp faju asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ni yéenay seetaan seen chaîne leader bi nga xamante ni mooy Salam Vision Events ñu am mbégte tey dellusiwaat ci suñu rubrique bi nga xam ne moom lañ tuddee kàddu askan wi kaddu askan bi nag bu ñu ko waxee wax dëgg yàlla ñëpp a ngi ci biir waaye askan waa ngi ci biir waaye tamit wax dëgg yàlla lépp loo xamante ne aju na ci biir réew mi ci biir gox yeeg goxaat yi am nañ ci wàllu plus particulièrement jamono bii ñu toll nii kenn ku ne xam ne wax dëgg yàlla réew mi li ko lëmbee mooy élection locale pouvoir beeg nangam sangam bokk na ci li tax ñu gën cee farluwaat bëgg ci defaat ay jotaay yoo xam ne dina leen bi nga xamante ne mooy goxu Pikine est laa a wax wala Pikine Nord ci dig digal boobu daal ci lañ nekk parce que ñoom ñaar dañoo xaw a taxaloo waaye dafa am coow lu fa am loo xam ne moom lañ bëggoon ñi nga xamante ni ñoom la dox ci seen diggante waaye bala ñuy def dara dañuy nuyu kenn koo xamante ni wax dëgg yàlla mi ngi ci biir bi dëkk fa doon fi citoyen doon loo xamante ni wax dëgg ko gis wala nga xam ko gis pas-pasam gis dévouement bi ne moom xam ne tamit dara commune bu Pikine macha allah ñu gën ko xam ci Ousseynou Ndiaye moom la ñu dalal ci biir jotaay kon Ousseynou ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalal ci biir jotaay bi macha allah rabbi ngi lay bàyyi xel téléspectateur yu Salam Vision ñi ngi lay seetaan bi ngeen ma dalal dinaa ko mhm. bi maa baax a baax a baax. yàlla seen di fépp fu ñu yàlla na yëgale. amiin yaa rabbal aalamiin mu mel ni Ousseynou gannaaw xam nañ la xam la tamit nga doon ndaw loo xam ne rek yàlla yaa ngi yëngu ci lu bari ci biir gox bi ndax lépp loo xam ne mi ngi aju ci développement mi ngi aju ci social mi ngi aju ci lëkkale ay nit rawatina doomi Pikine yi nga xamante ni fa nga dëkk dañ la ciy gis waaye dañu dégg coow loo xamante ni bëggoon nañ am lu ñu ci leer mu diggante euh, Lamine Gueye mi nga xamante ni moom mooy représenté la République des valeurs fii ci Pikine ak mbër moo xamante ni itam dafa nekk ci biir goxam doon rakkam doon jarbaatam doon léppam waaye dafa am mel ni dafa am lu dox ci seen diggante loo xamante ni lëndëm na ci bopp askan bi bëggoon nga wax ñu tey jii ci mbër mi waaye wax ñu tamit ci Lamine Gueye bala ñuy jóg defaat yeneen investigation yoo xamante ni incha allah danañ ko topp tam ci kàttanu yàlla. waaw loolu dinaa ci sawar lool waaye tamit euh, dafa am ay mbër ay mbër a fa doon bëree bis boobu tamit am na ku mel ni. sunu rakk sunu lépp sunu muy jara de am na sunu frère tamit muy Zizaar. Euh, waaw ñaar ñooñu tamit bëggoon naa xam kan kan nga ci wax daal maanaam. waaw coow li xam moom coow li moom dafa am fu mu fu mu sooxee koo. coow li boo mu jara de la su ma juumulee. léegi mais te Lamine dañu gis neexoo bu ci amoon gis ratax bu ci amoon te mu mel ni dafa am ci combat bi loola da cee xewu ñu bëggoon am ci ay leeral bala ñu bala ñu askan wi tamit mu leer ci seen bopp. waaw waaw su ma yeboo ni da tudd sax ñaari frère mm-hmm. ñaari frère nga tudd mm-hmm. euh, muy ànd jara ak Lamine mm-hmm. Lamine donte euh, bu coow ay coow yu ndaw jóg na rek ci ci kaw naana maanaam làmb la sport la waaw noo mën a def di ci dégg coow alaakuliyaan alaakuliyaan di ci dégg coow ay coow yi duñ jàpp ni coow coow loo xam ni la tamit euh, sooxee woon ci làmb wala mu sooxee ko ci mbër mi nga xam ni mbër mi nga xam ni moo doon bëree muy Diarra 2 Diarra 2 rek li may njëkk a ci loolu ci combat bi ñu génn ma ciy gën a naqarlu mooy defet bi ci jëlee defet bi sunu defet la mm-hmm. defet bi ñun waa RV sunu defet la sax laay wax mm-hmm. dañ koy naqarlu bu baax a baax a baax a baax. dëgg mhm. te wax dëgg yàlla bu buñ sañoon ndam la mooy ñëw ci biir quartier bi. Mhm. ndax bu ñëwee ñun ñëpp la ñëwal. surtout waaw kon coow yi ci am yëpp ñi ciy wax. Mhm. man ñaari camp yëpp dem naa si maanaam ci RVE muy côté RVE côté Jara. pôle gis naa ci ay xale ay xale yoo xam ne ay finance lan am gëm-gëm lan. ci côté Jara muy côté Jara di côté Lamine. waaye teewlu gis naa leen di wax ñoom di leen laaj. ne man amuma fu may farfarlu dëgg laa faral. Mhm. te dëgg googu faral mooy laaj na waa côté Jara ne laaj leen ndax yéen am na ñu ci ñëw wax ak Lamine waaye ñi ma ci laaj ñëpp dañ ni ma du waxuñu ma wax joo xam ni ñëw nañ toog ak Lamine te kilifa rek wax dëgg yàlla bu dara xewee. Mhm. at lu mën a xew at bu rayante amoon sax war nañ mën a toog mhm. buñ ko wax ak moom nag moom nu mu lu mu réagir loolu moo engagé wu loolu. te boobaa lu mu ci dégg rek moom la. waaye. kilifa bu fekkee dafa toog da ngeen di ñëw def délégation bu am solo ngeen ñëw seet si ko. wax ak moom boo leen waxee ak moom mu def lu mu ci engagé wul ak ci moom la lu mu ci engagé wul ak ci moom la. ci côté Jara Lamine man ni moom li ma mujjee wax ak moom muy benn baat ñaar bu mu wax. Jara sama frère la. sama grand frère am ñoo doon ànd. Mm. grand frère am dem nañ fii dem nañ fii. kon kooku. frère muy dëkkal ci ba nopp nit ñi. di leen xamal ni Jara sama frère la kon loolu kooku doo ko yéene lu dul ndam. ndam rek nga koy yéene. te lii lii lii lii lii la jot a am rek ci wàllu defet ñu bokk ko lu ma ne moom la waaye ñun ñoo ko moom defet bi. kon dañ koy naqarlu bu baax a baax ba yeneen combat yi ñëw daax combat bi ñu weesu. Mm-hmm. waaw di leen bëra di leen xamal rek nii nee na Lamine. victoire la bëggoon. te démb ba nit ñi jóge demee làmb ja defe naa ñu nag moom ñoo ànd. toog di waxtaan waaye li mu wax yëpp mu ngi wax pause dem leen doo leen demee kat incha allah dama bëgg defal ay ñaan samay rax sama rax kon ça veut dire que ni Lamine amul benn tendance boo xam mu koy teg ci quartier bi. intention bu rafet daal la ci am. te jàppale rek am ak jarbaatam la ci am. voilà kon waa quartier bi. il faut ñu bàyyi xel ni mhm. Lamine. lu mu mën a am rek. quartier bi ko gënal. surtout lu mu mën a am. espoir am ko gënal lu mu mën a am feebam foofu foofu mu dëkk gënal. beneen politicien bu fay ñëw rek da leen di malmené ak jara ak euh, Lamine. muy jara sax laay njëkk wax ni. bu fa ñëwee da leen bëgg a malmené ak Lamine. waaye dara ñoru ko ci loolu muy def. amul lu ko ci ñor. amul lu ko ci ñor boo leen wéetoon balaa ngeen a xam ne dara ñoru ko. ku yéen ñooñu di wax. ñenn ñi nga xam ñi ngi wax di jaraa di sàcc na kenn roceeku fóot def ko fóotu biir néeg te woo ko ndànk dem ba ci jaraa ne ko kat damaa am soxla sàngam bëgg nga fajal ko du la ko fajal la jaraal def te yàlla tax maire Pikine Nord def lépp lu mu def ci politique la ko defee bu amul fàng dajj du ko def te Lamine bari na loo xam ne am na loo xam ne jot na ko jëkk na ko jox booy ah te pas malgré ñëwuñu ñëwuñu ci moom. Mm-hmm. waaye bëggoon naa tamit bu leneen amatee ëllëg. Mm-hmm. nañuy ñëw nañuy maanaam nañuy def bolog. Mm-hmm. du jaree ñu ànd site internet yi sax. nañ ànd site internet yi. ba fenn kenn du mën a wax ni lii amul woon. defee ñu ñëw waxtaan ak Lamine sunu frère nga man bëgguma sax ñu koy wax waxu ay leader. politique wala leader leneen dañ koy xamal ne seen suñu frère nga da war a ñëw jàpp ci lii dama loxoom sax ne ko dangay ci def lii amul dañuy xaar mu def lii wala laa da ñëw def lii loolu daal bëggoon naa ko waa quartier bi bàyyi ci xel bàyyi ci xel bi dañ lii ku fi jàppalewul la bi da ngay jàppale koo xam dëkkoo leen juddoo ndoowoo leen yarandoo leen kon même yëkkal ki nga xam yéen a juddoo ndoo yarandoo fii mal malentendu rek moo fi am. malentendu rek waaye yàlla xam na ne. man gisuma benn tendance boo xam ne man man damaa gaaw a mer gaaw a gaaw gaaw a changé. te changé bi may changé yëpp su ma gisul lu dëgg damay changé. waaw kon tey jii man su ma gisee muy def lu loo xam ni yoon la wala ma gis lu leer. tey site bu mel ni euh, Salam Vision ñoom xamu bu leen wax coow li ban woolu ma ne ma il faut la nga leeral man dinaa ñëw leeral waaw mais Salam Vision léegi il faut ngeen xam ne Pikine la dëkk Pikine mooy base am la te fi ni ñun Pikine nañu ñor ba tax na lu xew Pikine dañu koy xam parce que lii information la yoo xam fa mu ko jëlee sori li tax ma woo parce que ma xam ne yaa ngi ci biir gox ba yaa ngi ci diggante Lamine Gueye yaa ngi ci diggante Issakha kon ñoom ñetti maire yooyu nga xam ñoom ñaari maire yi fa nekk ak Lamine Gueye mi nga xam dafa doon benn acteur de social doon acteur de développement di dimbale ndaw ñi di jàppale ndaw ñi ci biir gox bi kon xam naa la ci xew mais li coow li bëri bëri bëri yëpp dafa mel ni Lamine Gueye toppul toppul coow li ndax man dégg naa wala gis naa ci ay nit yoo xam ne délégation bu Lamine Gueye yónnee avant préparation bi ba démb defe naa ne yónnee waat na ci moom ay teraangaam pour taxawu booy taxawu jara loolu lan nga ñu ciy leeral yow mi nga xam ne jege nga Lamine Gueye waaw waaw waaw ndax que gis naa ne tamit foofu xëy na cër bi ñu ko jox moo la maam la moo moo matul. Mm-hmm. waaye lu muy ñaax dañ ko delloowul cër bi ñu ko war a jox daal cër ko waroon jox bu ñu ko mm-hmm. joxoon. je pense que dina romb ak ñoom foofu. Mm-hmm. waaye jàpp naa ni tamit def na def na loo xam ne tamit wax dëgg yàlla. wàccoon naa ak ñoom daal. jërëjëf war na ci. wax dëgg yàlla apprécier war na ci. wax dëgg yàlla daal. def na délégation boo xam ni le minimum def na ko fa. te mhm. euh, na ko rek. Mhm. beneen yoon. Mhm. balaa dara di xew. nañu arranger arranger mooy beneen yoon at bokkuma làmb kese kese kese kese leneen lu dul làmb sax. bu xewee ci carte bi. nañu def benn mobilisation ña ko xewle. nañu ñëw toog ak seen frère. toog ak seen ki nga xam ne moom lañu dëkkal moom lañ juddandoo moom lañ yarandoo. waaye pas question du koy def guerre. affaire bi bii politique la c'est pas la guerre. guerre waaw. guerre ku mel ni rek am na ñoo xam ni ñu ngi ci biir euh, parti bi ñoo xam ne wax dëgg yàlla suñu gisee day du doon def neneen ñu méngoo méngoowu la li bëgg man génn RV ak dugg RV wala dugg feneen man jàpp naa ne benn instant dinaa ko yemal ndax man Pikine Nord moomu ñor tey jii am na ñoo xam ne déglu naa leen ku mel ni Abdou. Abdou Diop déglu naa ko mu wax ci ay personnes yoo xam ni tamit wax dëgg yàlla benn ñaan ñett mu ne ma Weuz wax dëgg yàlla Lamine na jàpp ci combat bi. na ci jàpp na ci jàpp na ci jàpp na ci jàpp xam nga di wax na ci jàpp. tey jii bu yoroon ay millions sax gëm naa da ciy jàpp. waaye devoiram man jàpp naa ni def na ko benn instant. tamit bu dem man du ma ni kenn weer waa ngi ni te gisuma ko. li mu wax ma dégg sama nopp la. ndax combat bi dama ci yéex am lu ma leer. ndax bi ma avant ma ci am lu ma leer posé naa ko ay question posé Abdou posé ku ne laaj naa la. ba am lu ma leer doog cee sori. lii may wax ni bu ma ci amul lu ma leer lu ma leer lu ma ci wax. waaw en tout cas li ma leen mën a wax. ma xamal leen ko ngeen xam ko. mooy Lamine booy bi dem bëri. frère Lamine la. su ma yeboon ñoo bokk ndey bokk baay. man jàpp naa loolu ndax parce que nekk na nit koo xam ni ah booy bi def dëgg mu yaru bëri mu civilisé mmh. ah non jàppal teral yàlla rek mooy joxe ndam dëgg la bu yàlla dogalee lii bu ko kenn mhm. ko jàpp ni lii dogal. kuy bëree daanu sax ndax. waaw kuy bëree daanu. Mhm. te beneen yoon. ñu xoolaat yoon bi xoolaat taxawaay bi xoolaat bi. Mhm. ba bi bu amaatee ndax bu amaatee combat. ay ndam waxuma la ndam ay ndam ñoo ci toog ay ndam. ci yàlla amee. yàlla mën na ko mën na lu raw loolu. donc mu doon loo xam ne euh, wax dëgg yàlla indi ngeen ci ay leeral du tey dañ jóg ñu itam leneen luñ ci war nañ ko dinañ seeti Diarra 2 dinañ seex tamit seeti ji Lamine Gueye mais politiquement tey bu ñuy wax Ousseynou Ndiaye élection locale yi coow li bëri na gars yi ne nañ par force dina am te effectivement il faut mu parce que tey jii loolu askan yëpp di xaar parce que on changement dafa jot ci maire yi nga xamante ni seen mandat jeex na depuis plus de trois ans ou deux ans tey jii Ousseynou Ndiaye fan la taxewe ak kan la àndal a gum ci élection locale yi nga xam ne ñu ngi koy waajal. waaw wax dëgg yàlla sondage benn sondage rek laa ci def lenn nag laa ci def. Hmm. xool naa bari naa lu ma doon dugg di génn waaye ñi ma suivre li ma jot a suivre li ma ci ma ci gën a xaw man ku ma doy rek laay ànd doy waaye du xaalis bi mm-hmm. waaye gis naa doy na doy doy na ma ay jëfinam mm-hmm. yëg naa fa sama parce que maa fa li nga xam ne moom laa yëg mm-hmm. deuxièmement mu nekk koo xam ni ñoo juddandoo ñoo yarandoo ki may jàppale ailleurs. ma jà jàppale ki ma dëkkal moom moo gën a. deuxièmement koo xam ni mu leer na ma kii yittee Pikine Nord moom ëpp doole ay yitteem. waaw ndax koo xam ni balaa moo tëdd fajar jot huit heures bu jógaat des fois mu abandonné liggéeyam. jël alalam di ko jox population bi waaw kooku man ni Lamine tamit fekkee yi siibur nga ko rek boo ko siiburul ak wala jege woo doo ko doo mën naa mën nga koo ŋàññal waaye boo ko jege wala nga ànd ak moom quelque ay bis waxuma la weer waaye ay bis boo ànd moom man sa seeke ni bàyyi ko doonul gaaw ci yow mais continuer de ànd ak moom di ko indil tamit population bi mm-hmm. loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax tamit gis nga nit gars yi ñun ñoo waa quartier bi. Mm-hmm. rawatina fa ma dëkk muy espoir. Mm-hmm. ah rawatina fi mu nord mais commune commune bi nan ko dégg ñu fi juddoo ñu fi yaroo. Mm-hmm. tamit gis nga réew boo koy dénk da koy dénk ku yor dara ci poosam. waaye boo ko dénkee koo xam ne yorul dara. dina billaahi dina jël dina jël budget ba ci ay ay terrain Kër Massar Malika. bu fu ne dina fa dagg ay terrain mun bu paree day leen yoreel nu nga neex la koy yoree bu paree dem tabax ay terrain dëkk jóge fi baleen fi suñu coono rek la fi ñun nañu fi bàyyee waaw ay ba pare maire commune bi rek nekk na maire bu ñu sonaloo sonaloo sonal sonal lu muy Amadou Diarra amatul benn territoire boo xam ne moom lañ mën a dox bépp territoire boo gis te dangal na ko jaaykat yi du jaay te li ma gën a nakkari ci territoire Pikine bii li ma ci gën a frapp ba nakkari ma ba ba sa kanamu yàlla amul kenn koo xam ne Pikine Nord la dëkk ñu daggal la place boobu dama wër di laajte waaye ñi ma ko laaj yëpp majeure partie ñu ngi def kër Massa ñi dafa mel ni moom gannaaw yaa ngi ànd ak Lamine Gueye suñu moom lu jaral def fi ne da nga ci daal di xëpp kaani ko am ak loolu laay daal di jàpp quoi non dama ci xëpp waaw mu mel ni Ousseynou yaa ngi ko doon wax léegi nii kon wax dëgg yàlla waaye man nee na su ma su ma seetloo bu baax est ce que yow bokkuloo tey ci ñi opposé wu ak jara ba tax na fi mu toll nii daanaka waaw génnee faayu daal li nga bokk RV moo tax yow daal man euh, mi di ma interrogé mhm. <laughs> nekkuma woon fenn man dama doon dem ak sama yoonu bopp rek waaw ah, looloo ma jaaxal nag man waaye fu ma toll dama koy suivre damay suivre le maire. Mhm. di ko suivre di ko mhm. suivre saa su mhm. waaye jëfinam lépp dara normal ci dara ci intérêt bi ci noor. moom dara talul dara wala mariage tëdd xaaju guddi yi yeewu deux heures dem non dagg place yi ci kaw tali bi ñu wax dëgg yàlla soxlawul loolu. <laughs> espoir. tali li ah, tali ba ah, karo lañ fa def. karaali karo boobu dem na ba mbëkk jumaa ja depuis boobu ba tey. gisuñu benn yoon laa benn yoon boo xam ne rek ah territoire yi ñu nax ñu ba élection romb ñu dem pourquoi le maire mënul ñëw taxaw def intervention ci loolu. Mhm. ba tey nii amul amul territoire. noonu lañ ñu ko bàyyi bàyyi si si daw dem seen yoon. waaw maa maa ngi dégg itam ci fan yële ci biir koor gi ndogu lu mu fa woote woon xaw ma nu mu ko yebaatee oto yóbbu ko loolu tam. non yow dafa nga àndal. non man na ay. non laa dëkk non ay nag. dama dégg ni dafa dafa indi ay xéwal defal ko fa ba waa koñ bi depp jàpp ni moo ko ñoo ko moom mu jël ko yebaat ko ci oto yóbbu ko noonu laa ko déggee. demee rek léegi nag ma bëggoon nga leeral ma ci yow fi mu ne bala ma koy seet seet maanaam maanaam programme boobu mhm. dañ ni espoir waaye euh, programme bi du programme espoir mhm. programme bi jaraa dafa amoon feneen activité beneen programme feneen mhm. maanaam togg dañ doon indiwoon ba bagage ku toggee ko fa def ko yëfu maanaam xel mu yaatu lan lan fa lan indi teg xel mu yaatu mooy nan indi bagage yi togg ba ñëpp ni coow li ndogu li ndogu li ndogu li ndogu li ba ba benn instant bi ndog bu ndog yi pare ci la oto oto bu bëla arrière teg lekk yi yóbbu waa koñ bi moom tëbaluñ ci waa koñ bi amul ku mën a taxaw ne lekk na ci lekk yi gisuma ko jël nañ lekk yi yóbbu nañ lekk yi jëm yóbbu ko maanaam programme bi am na ñu yóbbu ça veut dire ni dañuy nax dañ bu boob dañ bu boob dañ bu boog koñ ba dañoo bu bi li gën a garaaw rek maanaam euh, fi ñu defee mbir mi mm-hmm. dañ ko defee ci benn fu doy waar foo xam ni su ma yaboon nii suñu kilifa yëpp majeure partie bi fa lañ leen jullee am ay suñuy rax mm-hmm. suñuy mag suñuy mm-hmm. ñëpp nekk fa ñoo xam ni booy am booy am passif yoo xam ni ay booy lañ ñu bëgg leen considérer ay loo ñoo xam ni naan ko sàngara wala jóg yàmba wala leen te booy duñu genre boobu bi ñu ñëwee bay joxe xaalis bi booy bi foo foofu nekk boise booy yi. Mhm. kon war nañ mën bu nu ñëwee di jël euh, xaalis di ko joxe kon saalu mais koo fekk ci këram. di fa togg ay ndog xanaa xaalis ba ngay joxe war nga ko jox borom kër ga. dëgg waaye bi ñu ñëwee danoo tëb suñuy raq considéré wul leen kon ay ay ay nit ñu normal jël ko dem jox ko seen i nit ñu nekk ailleurs jox leen yëkkati benn nee na 900000 ci ay wax. Mhm. jox leen ko booy nekk ci ay figurant. booy suñuy ràpp la bu leen defee bu ñu leen bëggee teg loo xam ne bëgg leen ko teg loo xam ne nekkul seen i jikko wala nekkul seen i nu nu mel. Mhm. ñun du nañ ko naqarlu duñ ko rafetlu. Ah waaw ndax xam ay booy yoo xam ne ay booy ay jàmbaar la ñoom ñoom na booy xale yi rek nan xam ni. Mhm. man man bu nu waxul woon ma dégg du ma ci wax. Mhm. waaye booy yi nanu xam ni waa Kër Jaraa muy Jaraa ci personnel laay wax. considéré wu leen ay nit ñu normal te booy ay nit ñu normal jërëjëf Ousseynou kaddu gu mujj gi lan lay doon fi mu toll nii ci biir jotaay yi kaddu gu mujj gi daal mooy waa quartier bi nanu yeewu mhm. yeewu bi ñuy yeewu mooy nanu yeewu te xam ni président Lamine Gueye dañ ko ànd ak moom ndax tamit wax dëgg yàlla mooy doomu quartier bi mhm. te wax dëgg yàlla lu waaye am bu tegewul su lu bu ñëwee mu taxaw ci mhm. quartier bu toll noonu booy ci lim ñu lekk mosul lekk alalam bariwul kon wax dëgg yàlla nan rafetal rek ndax bu muy man muy keneen am na loo xam ne lonk ci nit rek taxul nga bari la tax lonku junni taxul nga bari la mooy nan tu dal ko teg ci yoon ndax xam ni àdduna amul solo te xam ni daal su Lamine mooy suñu frère. Mm-hmm. waaw. macha allah ànd moom macha allah. mu doon lu am solo ci ngeen dégg loolu kaddu yooyu nga xamante ni moo bàyyi ko ci ki nga xamante ni wax dëgg yàlla présenté naa ko ci départ bi te nee leen kenn ku ne xam nga ko wax ba nañ ko mën a bàyyi xel ndaw la lu ne ci biir gox bi ci diggante Pikine Est Pikine Nord donc doon a xew soo ba jant bi so na ci ne ciblé woon nañ leen pour ñoom ñu mun ñu indil ay détails yoo xam ne dina gën a leer askan wi fii à travers Salam Vision dégg ngeen ko li ñu indil waaye du tee duñ ci yem danañ seeti ji ki nga xamante ni tam wax dëgg yàlla mooy jara 2 waaye itam danañ seeti ji encore monsieur le maire jara parce que lii ñu dégg mu wax ko fii tam man lii déggeewu ma ko ci moom njëkk naa ko dégg feneen dinañ ci wuti jàmm ay xam moo ñu dinañu gën leer gën leer askan wi ndax nee naa leen ñun on a droit de divulguer les informations en temps réel mais quelle information doit-on diffuser mooy une information juste et vraie seetuñu fu ñuy far seetuñu ku ñuy àndal li ñuy diffuser xam mooy lan information bu dëgg bu péng ñun loolu la ñuy divulguer loolu mooy suñu liggéey mooy suñu wareef mooy suñu li xam ne moom moo moom la ñu war a def buñ ko defee mu wàcc ñu buñ ko deful duñu wàcc kon loolu la ñuy saxoo saa su ne di ko def incha allahu rabi ñu recevoir dara ñu ñu waxtaanee ak yow ñu lay ñaanal tamit sama borom defal la jàmm doon la guddal fan yi gën a wéral cër yi te yow itam mu yeggale ko ak sago ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen jotaay bi la woon di kaddu dinañ topp leen ma rek man moom xam ngeen fu ne maa fay dugg incha allah war a danaa lëj ba mu leer naa ñu ma teg ko ci kaw taabal bi dig daje incha allah beneen jotaay jaaj wa munzili shifaa'i wa dawaa Serigne Abdou Salam Mbacke sa xel war nay dal gannaaw boo jëflanteeg moom ba pare waaw ci alxuraan rek lay dox déggoo ma de ñaanam xaas la muslaay gaa ko raw yow mi say mbir dëgër maanaam nga umu bëgg a ubbeeku nag baloo yootu jot ci Serigne Abdou Salam Mbacke moo ma ci doy ballak maaram ay saak saajo waajaa ngi nga bëgg liggéey bëgg itam tukki mu tëla ngay lijjanti ay kayit mu dëgër nga jortu ni dañu la liggéey baa xewoo déggoo ma de mooy safoo kenn nga bëgg bayre moo ma ca doy yaay raw bukki bu joox ci ngénteel pël bu ngeen jëflante nga nekk itam bitim réew ay kayit jafe la lool waaw ba ci yow mi bëgg liggéey mu tëla xoolal ana ñi bëgg bayre njaay la mu cay def mucc na ayib ngay jigéen bëgg bayre pour ñu sopp la bëgg la ba ci góor itam nga bëgg bayre ah, amu ca morom waaye kaaraange gaama ca gën a neex aar la doog la koy jox nga nekk ci entreprise bëgg a yëkkatiku yow mi yor sa entreprise itam bëgg ay muslaay néegi sa yi bari rëng-rëng day sëriñ Abdou Salam Mbàkke moo ma ca doy coow la bu ngeen jëflantee ngay jigéen di say ci kër sa jëkkër dana la gën a nopp waaye say goro ci say njëkkee say mbokki jëkkër dañu lay adoré fu ñu mën di toll waa koñ bi nag ñépp lay sopp ngay say ci kër am jafe ak sa borom kër ci yow mi jigéen bëgg jëkkër mu tëla ngay góor itam bëgg soxna mu tëla ah mbir a ngi waay ba ci yow mi faru rab sonal muy ko góor ki mbaa ko jigéen ci ñaari wàll yépp nag boo bëggee dégg-dëgg ba ci ñaan listixaar ba tey ak seet woo ko ci 78 433 78 78 maanaam fajum cosaan ak aada nga néew kartan ci néegu sëy ba tey nga amee ndoxum siti hémorroïde ba ci ballonnement ñu baamtuwaat ko 78 433 78 78 moo ngi nekkee géejawaay marché Sam en face centre commercial bi ba tey yéen ñi bëgg ay muslaay ba ci ndomba kaaraange mbakke yi fii rek la man Dj Mboy normal day yàgg naa di leen wax ki ko mën a ki koy jéem du benn ak sëriñ Abdou Salam Mbakke rek njàqare day daal di dañ ba jeex tàkk ci kàttanu yàlla ak mbaaxam aajo yépp faju